waa dëkk bi doomi réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcce waay yéen ñëpp di leen ñaanal jàpp ju bari nag waaw waaw di sàkku seen ñaan rek comme niñ koy defee di leen bége yéen ñëpp di rafetlu seen détermination seen bëgg réew seen taxaw temm ne incha allahu rabbi fii moom paa bu fi fenati ñun la dangay fen maire bu fi fenati ñun la dangay fen ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax a baax ci seen bëgg dëgg ci seen bëgg yàlla ci seen bëgg yonent bi ci seen bëgg réew mi ci seen bëgg àdduna ci seen bàyyi xel àllaaxira ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax ndaw ñi jàmbaar ngeen de billaahi waaw ah, ndaw ñi say ji da nga ne xam nga ne ndaw ñi mos bu démé ba yar mag ñi Cheikh Ahmed Tidiane ci al maktoum waxon nako nak ah, waaw waaw billahi ne woon na ndaw ñi dinañ yar dinañ yari dinañ yari mag ñi yari seeni morom mais fa lan toll yalla mi ñu tim xam nako pa buy dof dof lu ba dugg ci suñu 18 dinañu la ñuus ba nga xam ne ndaw ñi ñoo mom dëkk bi pa buy dof dof lu ba ànd ak sàcc yi sacc alalu réew mi Pabu buy dof dof lu ba and ak comploteur yi ba ak ndaw ñi ndaw ñi dinañ la nokku ba nga xamni réew mi yaak ñoma ci bokk yam ngeej ñak ngeen jom lool ñak fayda amu leen ben dignité amu leen ben personnalité réew mi fi mu toll gis nga eh, murid yi buñ amé xew xaw wala tidiane yi wala keur mam bàyyi laay da nga nan sénégal dal dëkk bi dal dara xewu fi te dëkk bi am na lu fi xew de pétrole bi ci réew mi wax leen ci ma ne bi ci réew mi wax leen ci zircon bi nga xam ne ay ata ngi ñu koy manque di di di yóbbu wax leen ci phosphate bi ci réew mi wax leen ci mani ne bi ci réew mi dama ne ngeen wax ci wax leen ci réew mi te bàyyi ay tappale ay tappale baaxul kilifa yu toll ni yéen ah, fu ngeen toog di ñu bëgg a sonal ak ay wax joo xam ne ajutum ngooñ yéen a ñàkk jom billaay yéen a ñàkk coq yéen a bon wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi di ngeen wax ci réew mi de billaay réew mi di ngeen ci wax réew mi moom di ngeen ci wax wala ñu ñuus leen ba ngeen waaw booy maleka samay wax du neex yéen paa yi laay waxal yéen sëriñ ci fi toog yéen ñii fi toog ni yéen a fi toogal sëriñ touba wax leen ci réew mi wala ñu ñuus leen yéen ñi fi toog ni yéen a fi toogal maam limaamu wax leen ci réew mi wala ñu ñuus leen yéen ñi fi toog ni yéen a fi toogal Seydi Xaaji malik wax leen ci réew mi wala ndaw ñi ñuus leen waaw yéen ñi fi toog ni yéen a fi toogal baay Niass dama ne ngeen wax ci réew mi wala ñu ñuus leen loolooy dëgg raayaluñ fi kenn joxu ñu fi waaye ngëj bon ba dee wax leen ci réew mi bon ngeen lool ah bon ngeen a bon a bon a bon a bon a bon a bon a bon ba bokk bon mag ñu tol ni yéen amu leen benn yërmande billaahi amu leen benn yërmande yéen a bon fii réew mu toll askan wi di loru kenn ci yéen mënu cee ubbi gémmiñam wax ah xam ngeen ni ni ngeen mel baaxul de ah mel melnya ona. Kolon sama sama sama sama sama sama hajja khalifa general bu laay ni laa ko tuddee dudu maktar Duudu ngi <laughs> dudu dudu yow dudu maktar, nijai Maxtaar nijaayi ceew laay nijaayi ciow lay ngi ak nijaayu ala magi Mamadou Lamine <laughs> Maki maam ji imam maktar, mo ngi ni de duudu maxtaar la ko tudde xalifa general bu layen mo ngi ni de doomi ram ji xam nga ne sama xaj be la gën de sama xaj be la gën la la wax waaw yow nga xam ne nee nan yaa fi togal mam limamu sa njabot ga ngi rayante ci 47 hectares yin jox Malika fexé fexé ba ubbi ci sa gemme sama xaj bi la billahi sama xaj bi la gën do Doudou Makhtar khalifa general de Layène mu ngi siang de ki de ëpp njariñ seen khalifa bi ni ngeen koy gisee tuuti waayam bii kër gi kën du fi dugg de kën du fi dugg kën du ko rour de ah dudu Doudou Makhtar Doudou ni jaay ci wala ak ala ci wala ngi ak ala <laughs> magi momadou lamine ak mam ji nak imam modou makhtar sama liye len ëpp njariñ de limi touti touti de keur gi ken du ci dugg ken du fi dugg ken ken du fi dugg wax len ci rew mi ñak ngeen fayda torop ñak ngeen fayda torop ta ñak jom wax len ci rew mi mënu leen fexé ba wax ci rew mi bay baraka wax leen ci rew mi kilifa day taxaw njabotam di wax ci rew mi xam ngeen ni ni ngeen seetaanee askan wi ñaawna lol ñaawna ñaaw na de séri ko ko jugal sangu julli ana mama sama guy. waaw gars da damay doora wacc tay am na ñu may envoyer message nan ma boy Malika xanaa yëgoo lu xew boy Malika gëj ga lay man leen boy Malika li li xew lepp yëg nako mais dafa fekk nak mu nekk lo xamne waxon nako ba pare nekkul lu bet neewon na leen suuf si nga xamne état bu Sénégal moko jox communauté Layène ta mu nekk commune bu Malika waxon na leen ci ñàkk mbir mi mu jël Serigne Cheikh koy jaay séddoo ko mu def tak ngeen bokk ca yàlla wax naa waxa waxa waxa wax ba tas mënu leen maa déglu buy wax seen njariñ rek ngeen tam ko dëmm bu koo def loo xam ne tey jii nii mooy loolu ana sama wax ji li leen dal ci 37 hectares li leen dal ci ci suufus malika suñ dëkk sa bu soobee yàlla yàlla xam na ni moo leen moo leen moo leen di dal fee te du ngeen ci man dara du mujj fenn du ngeen mujj du mujj fenn waaw du mujj fenn la mujj parce que yéen yéen ci boppam yéen a ay nit yéen a ay nit moo tax bu ngeen dul ay nit nag yàlla da leen di booleeg ay njiit yoo xam ne mooy loolu oo du waxtaan bàyyi bàyyi baraka bàyyi bu ngeen ay nit wóor na yàlla du ay caaxaan ñeexu leen a waxal nit ñi dañuy wax ak yéen ba sonn ngeen di leen tam dëmm lu ne ngeen di leen ko wax ah ndeysaan dafa am sama benn waaye bu bu bu dëkk yëmbal ndeysaan mais message bi yëmbam bi dafa dafa dafa daw sama yaram quoi bilai dafa daw sama yaram parce que moom da doon espérer ci suuf see ñu jox commune laayeen malika yaakaar ni gars yi dinañ ko liggéey liggéey boo xam ni ëllëg dinañ ko mën a jaay yi prix bu yomb mu am ci kër mais bi mu gisee affaire yi nam doxale la ne booy malika billahi yàgg na maa toog fii de naan booy malika bis bu wàcc Sénégal ñi njëkk a ñax ndeyam ci laay bokk mais bil ku ñaf sa nday ma ñaf nday ma ni ko déet way sa way te nga te nga taxaw fa nga taxawon rek xaar ma ma ak saw ya neena leen da ngeen di ñak da ngeen dañ leen di nelawal parce que ñi ngeen tek ci jappel leen ay kilifa du ay kilifa parce que bu doon bu doon ay kilifa lan tay li justice bi tay nekké ci réew mi danañ ci wax danañ ci wax de mais du ngeen dégg kenn wax ci parce que ñoru leen ñu seeni doom ñu seeni jabar waaw tey ji ami jam yi ñu tëj ci kaso bi di ko eh, eh, di ko ay force spéciale bu doon ami laay ñetteelu Mamadou Lamine Bell temps bi mu def ci kaso bi du fa def du ko fa def de bu doon ñetteelu bas Abdou Khadir la billaay du eh, du fa toog waaw bu doon baali bu doon baali bu doon baali Mbàkke la mu mun taxaa nooy ta neex billaay lii du am yàq ngeen réew mi waaw yàq ngeen réew mi yéen a yàq réew mi doomeraam yi ngeen doon ni kenn du ko wax dama koy wax man dama koy wax ba Samba di dem ba yéen yàq réew mi waaw doomeraam yi bu ngeen toogee ah, ay appel ak gàmmoo ki màggal tax na tey ji pétrole bi ci réew mi du ngeen lijjanti ndayam zircon bi ci réew mi du ngeen ko lijjanti phosphate bi ci réew mi du ngeen ko lijjanti thorium bi ci réew mi du ngeen ko lijjanti yéen yéen ay ah. ñan ndayam yéenay ñan laa wax yéenay ñan du ngeen ci wax ah surtout yéen communauté Layène dëkk ci biir dëkk Ndakaaru ci capital bi ah balaa maa dee imam njiin génn di ñu may ay discours tappale yoo xam ne yow yow geeru France geeru yow allemand yi bin fi sonalee France euh, français yi yow sa baay Seydi Babacar min naan baabul ulum ah mom la sayidina Isa jiitaloon sayidina Isa don recruter nit ñi nit ñi don dem sa guerre ba ba walé sama ben, euh, magu papa bu naan Baye Maguette Gadiaga bamélam mu nga France doomi ram yi barki dembu ma nga deg imam Seydi Gadiaga malik nan waw xam ngeen ni li baxna comme affaireu daire yi ñi wax de parce que waw yi mo gën ay talak, yu kenn xamul di manifester di tal ma ko imam sayyid ya toj sa ciortu nday <laughs> imam Seydi Gajaga billaay yaay doomi ram yow nit gënul ay do mo xaram bi nga doon ya ñaf sa lay dëgg billahi ya doon na xaj yéen a fan leen ci réew mi pétrole beeg turéem bi ci réew mi wax leen ci phosphate beeg marbu bek carter bi dama ne ngeen wax ci ñun askan wépp ko bokk hôpital yaa ngi am ay jafé jafé ma nga ma nga dégg Magu Thiaw ndeysaan quarante cinq hectares yi yi ñu yi ñuy liggéey Malika néna khalifa bi bee ko jiital ndeysaan nan nee na ñu di toll six hectares di dinañ ko fa génné pour lieu de culture bi moy fi ñi def ngejj ga ñaan yeeg yooyu noonu léegi trente neuf hectares yi ci dess nak dama bëgg yeen ngeen xamné yeen layen yi euh appelu 2022 bi fi Duudu maxtar njëkk a toog mooy xalifa bii ma tuddee sama xaj bi te sama xaj bi sax a ko gën appel boobu Gana da koo jox cinquante million li tax nag Gana ñu dugal ko ci quarante cinq hectares communauté Layène yi muy maasale ni ngeen xam ne Duudu Maxtaar seen xalifa bi moo ci encaissé moo tax man Brésil gii laay toog waaw di doxaan ndeyam guddeeg bëccëg parce que sama alal la ci laa bokk sama jabar ci la bokk sama doom ci la bokk sama doom yi ñëw ëllëg ci leen bokk waaw maam limaamu di sa maam ak sëy naa ma njoon di sa baay ak taxul tey jii alalu patrimoine laayeen yi nga bëgg toog fee yàq sa benn jeeg immigré France def fa lu mat ñaar fukki at ak nangam daanaka fanweeri at nga xam ni cinq millions yu daje mosoo téye ndeyam ci sa loxo bi ñëw fii ñu fal la ni yow yaa fii xalifa général de Layène nga war a toog tey gi jafe-jafe Layène yi nga indi ci indi ci solution defoo ndeyam ba nga fi toogee ba léegi kenn gisu la nga mokk monk ci sa ruq sa doom jee di libaas dem uti promoteur ah këram këram gi gis ngeen ni mel jal caw mom deg na legi tak na ñaarel bu xale bu ndaw dégg naa la tak jal caw ah jal moy doomi ram appel bi fi duudu maktar njëkk a toog yéen sëriñ si kenn du waat xaalis bi nak parce que xamulen ko mais jal caw camion nak bi mu jëndoon di leen jox ay nag ak di leen jox ay tieb ak di leen jox ay enveloppe na ngeen xamne ne la ci 45 cinq hectares laayeen ye gànna jox yéen laayeen nag yéen laay waxal yéen jeunes yi gis ngeen gànn bu lutisee nday fee ba pare dagg ko ba pare lam fa def ci xaalis ay terrain lañ koy fay cinquante million yi mu jox xalifa bi ay terrain la koy fay kër sëñ Ablaay dugal nañ fa vingt million kër sëñ Ablaay gi nekk Malika dug moo tax xeex bi li muy metti metti ngeen gis njoon caw di yéeg a wàcc du ngeen fa gis paana du ngeen fa gis njàmbe du ngeen fa gis Matar caw du ngeen fa gis alin Diagne du ngeen fa gis kenn ko taxaw man maa leen ko wax sëñ Mamour mu ngeen fa gis mu taxaw ñàkk pexe ak li ma ko topp naan nga lekk nga ci ba dem fi Maroc di di di di noosi am leen fulla am leen fayda am leen fulla am leen fayda signal bii nag li tax ma def ko damaa gëj a génn ñu bari di ma envoyé message naan ma booy Malika xanaa yëgoole xew li xew yëg naa ko ba dee yàgg na maa toog fii di leen ko wax ñu suuf si di dinañ ko dagg lekk ko ngeen yam ci parce que ay doomi raam lan ragalun yàlla ragalun yàlla ragalun yàlla xamuñu kuy sayidina limamu ñàkk xam sayidina limamu nag moo tax tey ñu toog fii di tappale ñàkk xam yàlla moo tax ñu toog fii di tappale tey ci turu diine dañuy duul duudu maxtaar du dëjjaw ndayam man booy malika maa ko wax laayeen bu mu metti daggal paas ñëw brésil fekk ma fii ma toj sa cott nday seen xali seen seen laay wax seen bokkuma ci de seen xalifa bii du cott ndayam maa ko wax ab doomu xaraam la man maa ko wax du cott ndayam man nag samay wax du neex samay wax du neex du dërëm du dërëm ab cagabu làqatu la dinaa ci ngoon bu dee am naa jot dinaa ñëw def ci live jox leen lépp li nga xam ne tey jii am na ci ak sëriñ ci nga xam ne tey ger nañ leen ba gisoo leen ci ñuy wax de wax leen ci yéen ñii di ma envoyé message naan ma bàyyil maam njiin ak bàyyil imam Moodu Maxtaar tëj leen seen gat yi te ngeen wax maam njiin ak imam Moodu Maxtaar ak Mamadou Lamine ñu ubbi seen gat yi wax ci patrimoine u Laayeen bi man mënu leen maa xupp mënu leen maa xëpp man seen yi nekkuma ci de ñaf seen nday yéen ak ñii ngeen di défendre laay la la ba ngoon sax damay door a wàcc sonn mais bu ngoonee fekk ma noppali dinaa jël sama paaka bi daas ko ba mu ñaw ñi ngeen di bañ ma tudd leen ñëpp seen sullu yi dinaa dagg ndayam wasalaam doomu xaj yi ngeen doon duudu maxtaar du cottu ndayam tuunu ndayam maa ko wax